papa Sow maa ngi lay nuyu bu baax mu nekk ci papa ci usa saw ak papa saw papa tey am ku mag koo xamante ni génn na àdduna muy suñu papa Boy Bambara da ngeen bokk siq lu nekk lan yante témoignage nga ni ci mën a def. waaw Boy Bambara mën naa koo seede te yàlla rek tax euh, dafa nekkoon nit koo xamante ne dafa yorloon jikkoy mbër yorloon daray mbër dafa mënoon a rek. di bëre yàlla def dégg maam yàlla tudd ci moom ak mbër mais jikko yooyu ñuy wax ci mbër mësul ne ci moom ndaxte Boy Bambara kenn mënul wax ne att naa ko béréb sàngam muy xeex walla nga ne fekk naa ko muy tooñ walla muy yëpp moom daal nit la koo xamante ne dafa bari ay qualité yu baax yi nit ku baax di am ku ne booy Boy Bambara daf koo am waaw waaw waaw loolu moom mën naa koo seede ci moom jikkoy jullit la yore ku rafet xol la ku mënoon a muñ la waaw loolu moom lu ma ko xamala te yàlla rek a tax ma koy seede na amul dara lu ma ci sos waaw maa moom ànd nañu quatorze ans yoo xam ne guddeeg bëccëg ñooy bokk benn lal bu ñu tëdd waa loolu moom fu ma toll dama koy wax su ma liggéeyee Dakar Marine bu retraité fa yàlla ak moom moo ma jël yóbbu ma boole ma ku ma yóbbu Dakar Marine def naa fa 34 ans retraité su dee nag ci wallu bëre wàllu ñemeñ dëgër ku ñëw ci moom da ngay dëpp soo dee wut mbër daal soo dajeeg booy bambara soo ko joxee pour loxo rek soo yeboo nga dëpp mënatoo gis beneen mbër bu dul ku ko mën champion la. lu neex ci moom booy bambara. mën a muñ bi oyofal àddina bi amul loo koy def te mënu koo supporter loolu qualité la. su ñu la ne diw ku mën a muñ la ku mën a jéggale la ku mën a jëlale la. ku tabe la ku neex deret la yii ma la wax yëpp ku ko vérifié di nga ko gis ci Boy Bambara waa loolu moom lu am la mais su dara desulee nag mu takk ngemb rek dugg ci làmb gentillesse yooyu yëpp nag fële la koy dee day lay indil koy mbër waaw te ku ñemewoon ci metti la ci làmb daj na lu ne ci làmb boo mu am niveau bi mu am moom dafa dafa tarbiwu làmb dafa tarbiwu làmb upp pat yëpp mën bëre jàng bëre waaw waaw. jërëjëf ñu ngi koy delloo jaal bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñëpp la gaañal jërëjëf waay